ñoo ngi rafetlu jotaay initiative bi nga parce que damay wax souvent que ni euh, dialogue politique de mus euh, l'histoire politique du Sénégal de 1960 à aujourd'hui dañu New York dialogué te boo xoolee consensus acquis démocratique yi ñu a am yépp dialogue lañ dañuy faral euh, citer comme référence li nga le code euh, consensuel de 1992 bi nga xamee ni euh, feu Mbaye consensus le plus souvent dañ koy dañ koy citer te mun nañ dialogue ko donc bu ñu demee ba réew ñu am ay jafe ñu ni nañu initiative en tant que de la société civile loolu dafa nekk loo à sa juste valeur monsieur le président mooy euh, dañuy wax que société civile defe naa ni ba entre les acteurs politiques parce que ñun nekkuñu di concourir pouvoir ñun sunu rôle mooy bu fekkente ni ay divergences politiques entre acteurs yi ñu jël suñu bâton de pèlerin fexe xool naka la ñuy def ba rassembler leen loolu moo tax ñu man tey en tant que acteur de la société civile ma teew fi te ma jàpp ni également loolu mooy suñu rôle parce que bu fekkente ni ñi nga xam ne ñoo war a jouer les bons offices dañu toog croiser les bras ñëwuñu su boobaa defe naa ni dina jafe lool bu dee acteur politique yi dañu waroo ci ay gis-gis duñu am ku leen ku leen boole ñuy ñaan rek monsieur le président euh, ak mbooloo mi fi teew yëpp nañu fexe ba lépp loo xam ne tey dina fi jóge comme waxtaan parce que jàpp nañ que dinañ fi jëlee ay solution ñun loolu lañ gëm dama gëm ni Sénégal dafay mettre waaye dinañ trouver solution beneen bi aussi ma bëgg ko wax surtout nag ñi nga xam ne tey les acteurs de la société civile xam nga le concept de la société civile dafa évoluer buñ ko jël rek tënk ko ci benn catégorie de personnes mouvement féminin yi dañu bokk ci société civile mouvement associatif yi dañu bokk ci ay société civile parce que société civile tey acteur politique bi ni mu citoyen bi ni mu amee liberté jug ne man damay def politique jug ne man damay créer parti politique engagement la beneen citoyen bi également noonu la amee sañ-sañ jug ne man damay acteur de la société civile donc société civile nekk na lu yaatu sunu mbébét nag mooy monsieur le président ñu gaaw dem ci élection yoo xam ak nu mu gën a gaawee dañuy jàpp date bi mais nag mu nekk orga mu nekk bu ñuy jàpp date bi aussi ñu sóoraale que ni euh, nañu fexe ba bu ñu koy organiser dinañ ko def ci jàmm dinañ ko def ci dal mu nekk une élection inclusive et transparente ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci. Merci beaucoup, Monsieur Babakarba. À présent, nous allons ouvrir la séquence des organisations religieuses et à ce titre, je vous